invite Sénégal 7 sax ngeen organiser ko à Golf ñu def un débat de programme et à ce moment on saura kan moo am de véritable ambition pour sa commune Euh, tout à fait Khadija ñu génn léegi par rapport ak commune Golf Sud ak euh, tamit c'est ay ambition pour euh, cette commune chose yoo xam ne man maa ngi koy saluer en tant que femme ça fait plaisir de voir des femmes fu mu toll nii un peu partout dans l'espace public ñuy agir bañ rek positionner en télé téléspectatrice ou bien voilà Khadija léegi ñu wax par rapport ak montée de la tension préélectorale yi nga xam ne selu nañ ko depuis des mois ba ñu jàppee élection yi wala même avant élection yi nga xam ne jàpp nañ ko ci janvier 2022 euh, dañoo gis ne dafa mel ni comme élection locale yi dafa am benn enjeu particulier euh, demb gis ngeen ce qui s'est passé avec euh, le maire de Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Diaz votre candidat aussi à la mairie de de Dakar ban lecture ngay def si loolu damay am lecture bu simple que ils savent très bien qu'ils vont perdre ces élections locales et que tey lépp li nga xam ne mën nañ ko mhm. doole bi nga xam ne euh, doole état la est-ce que son arrestation même était justifiée c'était pas du tout justifié pour la simple et unique raison mhm. euh, je cite euh, Diouf mhm. qui deux jours plus tôt dem doxantu mais peut-être que moom dafa demande aussi autorisation. demande autorisation ou pas parce que évoque l'absence d'une déclaration. on n'a pas besoin de déclarer doxantu. monsieur Barthélémy Dias si biir la nekk en tant que maire. il avait la possibilité doxantu sax nag ci biir mairie en tant que euh, euh, euh, maire de la non non non laisse-moi non non non Khadija ba njaab njaab li ne fàng kenn du ko jeex xam nga lan moo ne fàng dañu metre au pas la police et toute l'administration sénégalaise pour ñu barrer la route à Yewwi Askan Wi il faut dire les choses telles qu'elles sont xam nga lu am ba am gis nga violence bi nga xam ne tey mu ngi am ñu koy yee muy fitna nañ ko arrêter et c'est une violence d'État c'est une violence euh, bi nga xam ne physique ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy orchestré jëmale ko ci ay opposants tout simplement parce que dañu décider ni dañuy nekk ci dëkk boo xam ne parti unique moo fiy am mm-hmm. heureusement d'ailleurs la constitution nous permet de nous opposer et nous allons nous opposer tey Sénégal mënuñu fee nekk ñu ne benn parti mooy manifester wu benn parti mooy organiser wu benn parti mooy def ay événement wam ñeneen ñi suñu jógee bëgg def la même chose ñu ne leen doo leen ko def ñun duñ ko nangu ah duñ ko nangu boo boo euh, duñu duñu xool mukk ku tooñ ku fayu la ñuy xool li ñuy dund ñun en tant que opposition njàpp mais est-ce pour pourquoi les gens ne se posent question à savoir lan moo tax ket démb euh, le cortège c'est euh, une question centrale le préfet s'est justifié Khadija préalable les gens ont besoin man su en tant que candidate pour doxantu deux voitures j'ai besoin de faire une déclaration mais ça c'est c'est une aberration ah non doxantu mooy carrément euh, c'est un excès de zèle il faut le reconnaître c'est un excès de zèle aujourd'hui que nous observons euh, mhm. au, au, niveau des des, des sous-préfectures et des mhm. préfets ñu leen di wax rek ni nañu garder une position républicaine nañu revenir à l'orthodoxie républicaine gis nga Sénégal ñun ñoo ko bokk benn bopp la kenn mënu ko xarñaar ñaar te tamit am na loo xam ne dañ koy réere mbir li ñuy réere mbir mooy nous avons opté pour nekk dans une démocratie nous ne sommes pas dans une monarchie bu nga xam ne benn nit mooy am lu ko neex ñëpp di ci tënku. tout à fait mais déjà est-ce bu ñu décidé def suñu ay activité ngelawaay nañ ñu bàyyi ñu doxal suñu activité. ci ah. jàmm ci njekk ak teraanga ku nekk. ku ku population yi wóolu euh, dénk la nga doxal ni mu gën a rafetee. tout à fait mais Khadija nekk ci démocratie aussi euh, mu nekk loo xam ne euh, suñu constitution la nekk est-ce que loolu aussi may na aussi droit ñenn si ay opposition pour ne pas citer Barthélémy Diaz gis nga démb kaddu yi nga xam ne jox na diggante moom ak commissaire bu Joppal gis ngeen démb muy dem ba di koy accuser ça de vol de portable aussi Khadija. mais looy justifié loolu lan nga bëgg ñu wax ko tey que ay euh, ay autorités yoo xam ne dañoo aspiré d'autres ay maire pour ne pas dire ça diriger le Sénégal est-ce que war nañ aussi di euh, ridiculiser suñu administration. mais quand l'administration se ridiculise elle-même bëgg ñu def ko quand des faits sont là mu doon loo xam ne dafa am lan nga bëgg ñu wañ ko wax ah non jàpp il faut qu'on soit aussi euh, conséquent par rapport ak li nga xam ne moo am li am mooy y a deux poids deux mesures dans ce pays en tout cas ñun on aspire demain à avoir des postes de responsabilité dans ce pays te xalaatuñu doxalee nii ndax lii du jur jàmm gis nga police la police doit être républicaine police dafa war a jouer rôle bi nga xam ne mooy rôle rôle bi nga xam ne moom moo tax moom moo taxoon ñu leen di naw mais tey lan moo am ba ngay génn di dox sax ñu arrêté la malmené la manqué le de respect mais Barthélémy Diaz n'est pas n'importe qui dans ce pays quand même c'est le maire de Mermoz Sacré-Cœur mais... il a même il droit ne serait-ce que ay administré mu dem doxantu seeti leen xam nga la am ba am mooy il faut qu'on revienne encore une fois à la raison il faut que nit ñi bu ñu leen joxee ay ordre yu nga xam ne c'est anti républicain ñu am courage ne pas accepter de jouer ce genre de de de, de rôle parce que c'est des rôles yoo nga xam ne daf leen di coller à la peau ñun commissariat de Jëppal moo ñu arrêté woon yàggul commissariat de Jëppal moo arrêté waat encore Barthélémy Diaz en fait lépp liy xew rek tey ren ci Sénégal ci commissariat de Dieuppeul lay amee mais il est temps qu'on se pose des questions quand même euh, par rapport à, ce commissaire. tout à fait aux ordres ou pas. parce que tamit nag lu ëpp tuuru. Mhm. te nag mu ngi bëgg a ëpp njàpp. mais Khadija euh, euh, violence verbale bi nga xam ne seetlu nañ ko du côté euh, du pouvoir mun nañ ko seetlu aussi yéen seen boor. nan lañ def kañ gis nañ ku mel ni Barthélémy Diaz propos yi nga xam ne daf koy yëkkati à chaque à chaque fois di koy teg si ndoddum justice. Mhm. votre boss ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko gis nga à chaque fois moom tamit mu génne forte sortie virulente yi nga xam ne da koy def pour ne pas dire. Euh, di mel ni comme que ridiculiser l'administration sénégalaise en l'occurrence la police yéen ñi tey est-ce que leen part de responsabilité par rapport ak violence bi nga xam ne fu mu toll nii mun nañu wax ne les nerfs sont tendus Khadija les nerfs sont tendus tey jotul ngeen def preuve de plus de maturité Khadija euh, on est très mature très responsable et conscient des enjeux. Ne pensez-vous pas euh, aussi vous êtes trop dans la dans le populisme pour je, ne pas dire si manipulation laisse-moi ma développer ah, di ah. nga xam fi ma bëgg a dem allez-y gis ngeen jàpp mhm. gis ñun dañu juddu ci démocratie ñun juddu wuñu si nooteel dañu juddu jàng xam suñu ak ay àq ak suñu ay yelleef umpale woo la ni lii nga xam ne tey moo am Sénégal c'est du jamais vu recul bi nga xam ne moom la Sénégal reculé en terme de de de de droit et liberté individuelle mosuñu ko gis. Mm-hmm. li nga xam ne tey mooy force état bi nga xam ne moom la ñu utiliser si suñu kaw. à chaque moment à chaque instant si suñu chaque manifestation suñu chaque sortie kenn mësu ko gis. mais aussi mais non laisse-moi terminer non non. Adja dama lay planté non euh, non euh, danga may euh, bàyyi ma dalal parce que su ma su ma eggaliwul doo xam si ma bëgg a jëm. xam nga lan la ñu constaté ñun uh-huh. li ñu def ñun dañu dañu dañu dañu relater des faits. Uh-huh. ñun suñu génnee di dénoncer la mal gouvernance ay rapport épingle ay nit ñu génn di ko wax ñu ne lu tax ñu koy wax te pourtant mu doon une violence d'état boo xam ne ñu ngi koy dund lorsque les gens détournent nos milliards lorsque des directeurs généraux en parenthèse la Diop en l'occurrence di jël xaalisu direction bu day ni la LONASE di ko politiquer mu nekk aussi une violence d'état ñu koy wax ñu ne lu tax ñu koy wax c'est-à-dire kon li ngeen bëgg mooy mhm. ñu ñuy noot diñu di di di appliquer euh, euh, euh, cette violence d'état là si ñun ba pare ñu noppi di ko duñ ko def duñ ko def xam nga lu tax on est dans notre rôle notre rôle aujourd'hui c'est de dénoncer ce qui se passe et on le fera tant que nous mais Khadija Sonko bien vrai que tey jii yaa ngi fi toogal toute la coalition Yewwi Askan Wi mais vous faites partie de PASTEF moom mu jël ay kaddu rek yëkkati ko dinaan man su ma nekkoon Ousmane Sonko bi ma convoqué convoqué euh, justice du mu dem te mu nekkoon benn convocation kii di euh, Barthélémy Diaz xamoon na ko bien avant. mais mais mu euh, xam ko ak mu bañ ko xam yow jàpp nous sommes tous au Sénégal. mais quelqu'un qui aspire à diriger le pays est-ce un comportement responsable.